الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين مكي خريجي صبي أك أبدي جامعي كم محمد مهدي نيون نجير يكلي سنو bi lëkkoo woon ak laaj yi xalima xalimatu ndoy laajoon na ko balaa kon xëy na ñu delluwaat ca fa ñu toll woon ci waxtaan bi ci seyduna limaam alayhi salaatu wassalaam waaye xalima soo seetloo kon waxtaan bi su dee topp nga ko te seetlu jotali dama say ngërëm yow ak ñeneen mu doon lu am solo ci ñun waaye nag ma bantuwaat la ma doon wax dafa mel ni su Mahdi yu di wax ne daf leen soxla yéen mën nañu foog ni waxin la waaye du waxin dama leen soxla te xalima xaw ma la waaye dama xaw a njort ne maa la war a mag dama njort xëy na ci njuum ne ndaw nga féete te dafa solo ndaw yi xam seyduna limaam alayhi salaatu wasalaam am ay tontu ci yenn laaj yu am nay jaam yàlla yu ñeme neen ji ko laaj waaye am na ay jaam yàlla am nañu ker sa laaj ko bokk na ci su fekkente ne alquran wax na ba pare ne al yawma akmaltu lakum diinakum ba fa aaya ba yegg yéen moo gën a xam dellu si yonent bi lan lay tekki xanaa diine indiwu ko su dee diine mat na ba pare liyawma akmaltu lakum diinakum lan moo ko fii dee tax a dellu si ak yeneen laaj luy mel dama wax ne layen bi amul ku muy expliquer lu tax mu gëm Seydunaa Limaam ndax koo mënti doon fu mënti féete layen bi laajul la lu tax nga gëm kooku te nag alxuraan sax dafa wax ni gëm bokk na ci ñuy wax gëm ci réew mi yàlla dugal leen foofu walakin al bir man amana billah doo fa fekk sëriñ mbola wariw malaayika yi nga fa fekk téere yi nga fa fekk yonentaam yi nga fay fekk waaye nag su fekkente ni kenn sañ yoon laaj du tax nga topp Seydina Limaam ndax laaj yu ñu kenn du tax nga topp ki nga topp dana am solo yow nga xam ngir xamal sa njaboot ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala diine lislaam mahdi yu lañu digoon te moom nag mahdi yu la tudd Seydina Limaam alayhi wa sallam moo tax may wax ne man dama leen soxla naa d'accord ak yéen sax ne waxin la waaye jàppal leen ma man dama leen soxla ci déglu gi ci dégg gi ci topp gi ngir seet lan moo ci yenu maana ak lan moo ci yenuwul maana kon nag soxna Xalima su fekkente ne yaa ngi topp te njort naa ne yaa ngi topp di nga gis ne gannaaw julli juróom yooyu am nga julli arafa bi nga amee sa julli juróom yi am ci julli yi xamante ne ci guddi lañ ko di def la may tuddee guddi mooy

jant bi jóguwul soo na xayma ñu gisoon ne nañu boole julli yi ci bés bi waaye doon guddi wutale naafila noonu lañu boole guddi bëccëg yi

la koy tëral mooy korite wax kon ban mooy juróom ñaareelu julli bi juróom julli bi ayu bés la yaakaar naa ne waxoon naa la ko ci njëlbeenu waxtaan su ma ko waxul woon ak pàtte la ndax julli dafa am julli ci bés bi ndax julli dafa am julli ci ayu bés bi waaye julli dafa am julli ci at mi xana fàttaliwaat la ko rek am na julli boo xam ne ci julli faraayid yi at ba at la mooy julli arafa te wax na la julli arafa buñ ko juwaatlee ak tisbaar julleem la ak ay shartam ndax bu la àjjuma fekkee ca arafat dangay bàyyi ajjuma ji julli julli arafa te ajjuma ab julli la am na julli ci at mi koy def arafat julli at at mu ne la ñuy julli ci arafat ndax ca at ma lañ koy julle te at mi at ba at la yam am de julli bés kon julli ayu bés lan moo ko fi indi xam nga soxna Halima julli dafa am ab dige julli dafa am fu dig jidde gi di taxawee la muy tekki mooy julli guddi yi digge la ne bëccëg a ngi ñëw waxoon naa la ko li jaam yi seetluwul xëy na wala li ñu bàyyiwul xel mooy ne sallallahu alayhi wa sallam fa mu jëlee julli jaam yàlla du fa yegg sulul ne moom la gis nga dangay dellu ci jibril alayhi salaam keroog bi mu yóbboo yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mu yem ne ko moom mënula weesu fii te booba yonent baa ngi waaj dugg ci ëttu borom bi subhanahu wa taala sona halima dangay delloo xel ci bi ko yonent bi di yëgal moom moom mi jibril womat ba foofu jibril mi ko womat su mënul la dugg foofu moom moom naka la fay duggee moo taxoon am na fi ca jamono ma waxoon ne

ñoom la ñuy tëralee nawafil kon ñaari jant yi nekk ci gée nekk ci ñetteelu ràkka bi ak ñeenteelu ràkka bi shafa moo leen di tëral benn ràkka bi nekk ci timis muy ñetteelu ràkk bu timis kooku witr moo koy tëral doon benn rakk lii soxla xalima moo tax shafa doon ñaari rakka witr doon benn rakka gis nañ ko nag man ak yow ak jaam yàlla yi ñuy topp nekkoon mu desoon ñeenti jant yu ñu war a tëral ma wax la ñaar yi tëdd na ca tabaski yeneen ñaar yi tëdd na ca korite ñaar yi tëdd ca tabaski tëral jantu tisbaar yi ñetteel ak ñeenteelu rakk bu tisbaar ñaari jant yi tëdd ca korite tëral jantu tàkkusaan ñetti rakk ak ñeenti rakk kon xalima woy sedd di nga xam ne Ndek ete rakke li moudon chi julli, limbi dafa am lounmoui teki. Itanid, limbi am chi julli chi bes, dafa am lounmoui teki. Ligi bon yu bole, pechek bi, moui tisbar ak takusan, ñu tëral leen ca korite ak tabaski dafa am lu fa xew lu xam ne feeñoon na ca keroog arafa yowmu arafa bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli ndax dafa boole woon tisbaar ak tàkkusaan wax naa la ko ci waxtaan bi passé na mu leen boole foofu noonu looy njëriñ ci ajjuma boole tisbaar ak takkusaan ca nawaafil yeneen di tëral moo tax boo la koy ràññee xutba ya nga fekkoon fële ñu indi ko fii waaye xutba yooyu nawaafil ya ñun dañu julli ba pare doog a indi xutba bi waaye lu tax ci àjjuma bi xaaruñu julli ba pare déedéet dañu xutba ba pare doog a julli xam nga ca bésu iid yi muy tabaski ak korité dañu la tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa ci julli gi ñu julli ndax yëkkati baat bi mooy ni jantu diine bi jóge na fi gannaaw nag jóge na fi ñu dogale indil xutba bi mu doon sëb sërije mu doob sab ndone bi nga jëlee ci sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu fi jógee kon ñu julli ba pare doogu xutba moo xam ca tabaski la mbolla la korite waaye nag gannaaw julli yi guddi yi dige la jant bi war a jóg war a am ñaari taxawaay yi fi indi ñetteel ak ñeenti rakk bu julli gee ñetteelu rakk bi di taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ca tisbaar ñeenteelu ràkk bi di taxawaayu sallallahu alayhi wa ca tàkkusaan waaye ku ci ne bu sa waxtu taxawee gannaaw Mamadu mooy Mahdiwu ñàkk teqali Mamadu ak Mahdiwu moo tax ñetteeli buñ ko indilee Mamadu ñenteel bi ñu fàttali ko ko muy tisbaar ak tàkkusaan dama wax ne julli ci boppam dige la ca julli guddi yi ci bëccëg bi tisbaar ak tàkkusaan sunu boroom subhanahu wa taala matal dige gi moo tax may faral di wax ne dañ ko seetluwul waaye ñaari yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wane na ko ci julli moo tax may wax ne ñun laaya ni gannaaw sallallahu alayhi wa sallam seyduna limaam nax nañu moytu leen dégg naa ak foog naa nañu jéem a seet ndax lañu dégg ak lañu foog dëppoo na ak li nga xam ne foraay di def ko indi moo tax may wax nañu seet Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ci juróomi ponk yi am ci lislaam ndax boo ko fekkee ci jëkkër fekk ko fa sallallahu alayhi wa sallam waaye julli gi ñuy wax boo koy xool da ngay gis ñaari taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax naa la ne yonent bi jant la te jant bi fu mu taxaw bëccëg lay taxaw ñaari waxtu bëccëg yi loolu lay firnde alhamdulilah rabbil alamin ba seyduna limam na muy ràbbe julleem boo koy seetlu di nga gis ne mu ngi lay junj yonent bi mu ngi lay junj kon sallallahu alayhi wa sallam jant bi ak julli ndax nag ki la loo géey ñaari rakka yu jiitu yi mu jàng fa suuratu alfatiha teg ci suratu shams jant bi kooku mu ngi lay junj jant bi ñaari rakka mu jàng fatiha teg ca suratu duha kooku mu ngi lay jung jant bi ci fa muy jógee ndax duxa mooy yoor yoor yi te ku ne xam na ne waxtu la bu fi jant bi nekk waxtu la ci waxtu jant yi ma wax nag ne sallallahu alayhi wa sallam na limam alayhi salaatu wasalaam soo ko seetloo dafa tekkali fajar gi ak subx yi waaye jël subx yi faatiha ak sar gannaaw moom nag moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a jàpp la mu doon def démb ci fajar gi tari fatiha kese soo ko seetloo fatiha kese ak fatiha ak saar am na lu muy tekki ci biir julli waxoon naa la ko fi fatiha ak saar màndarga la ci naka màndarga ci yëkkati sag baat mboola wàcce sa baat Fatiha ak saar fu ñu fa yëkkatee baat jant bi newu fa ci waxtu bi ngay julli Fatiha ak saar fu ñu fa bañ a yëkkatee baat ci julli la muy tekki mooy jant bi buy fi ba tax nga bañ a yëkkati sa baat ndax nag dinaay faral di wax ñun laayeen nañu delloo yëpp ci yàlla delloo yëpp ci yàlla nag mooy delloo ko ci alxuraan lan laa bëgg wax foofu mooy ne yàlla moom mooy jàngale ñu bañ a yëkkati suñu baat laa tarfau aswaatakum yàlla dafa wax ni bu ñu yëkkati suñu baat mu tiim baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalima wax naa la boo duggee ñetteelu ràkka ki xam fan la julli ne moo mën a ñëw wommat la ba nga dem ci julli xalima waxoon naa ne ku julli te yonent bi wommatu la yóbbu la fa julli ne doo mën a julli julli te julli du lu ñuy def lu ñuy jëli la kon màndarga yaa fatiha ak saar moom ci boppam màndarga la waaye nag na fekk ñu yokk ci biral wala yellu suñu ko biralee yonent bi moo fa newul bu la neexee sa baat dégg su dañ yellu yonent bi moo fa ne dee su la yellu deesu la biral baat bi ndax li alquran di bañ ñu yëkkati suñuy baat ci kaw baatu yonent bi te nag ku ñëw ci ñetteelu ràkka te dégguloo ko teew fi ci ñeenteelu ràkka te dégguloo ko nu sa baat toll nga yëkkati sa baat ci kaw baatam ma baamtuwaat la xalima julli du lu ñuy def lu ñuy jëli la kenn moo fu ma sa dem jëli ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xatta jibril alayhi salaam yeggu fa ka fa demoon moo fa mën ànd ak yow womat la ba foofu ci borom bi subhanahu wa su demee ci tisbaar سيدنا الإمام عليه الصلاة والسلام تنجا كلامي تم دينكو فك تا تسبارك مجان فاتحة اك سورة الدوحة نيارل بي مجان فاتحة اك سورة الأصر ما وحنا الدوحة ak asr yëpp ay waxtu jant bi lañu li ci yéeme nag mooy sur duha mooy fi jant bi jóge asr mooy fa jant bi soriwul fa muy tëddee yi ndax asr takkusaan lay tombeel boo ñëwee ci astir jooju tàkkusaan jooju ca la ñu tegoon sama loxo keroog bi ma ñëw ci kër gi te mu doon lu mën a dégg gannaaw fatiha suratu asr ñaareel bi gannaaw fatiha suuratu alkawsar lu mën a dégg su suñu nopp la ndax waxtu bi asr waxtu seydina limaam alayhi salaatu wasalaam lu mën a dugg suñu nopp la ndax nag suratu asr moom la ñetti aaya moo fa ne wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لو من ديك سوني دوك سوني نوب لا نخنا تي اسرودو تي نياري لو راكبي فاتحه الكوثر نسورتو اسدوني نياتي ايا نون لا كوثر دوني نياتي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دينا يقسم بين الجربات عبد الله نيكولاي نيوم سيد لواي سيدنا الإمام عليه الصلاة والسلام تشيلي مكالو يكر موي جوخن نلين صلاة الوسطى ndax ci asr la indi ñetti aya ak ku xam sallallahu alayhi wa sallam si na li man fi mu tegoo ñett yi ñett ñettam yooyu ci makalu la mu gis mooy équilibre lëkkaloo bi am ci suratu asad entre la nekkoon fële juróom-ñaari aaya yu suratu al fatiha ak ñetti aaya yi am ci suratul asr ak ñetti aaya yi nekk ci suratul kawsar kon bu ci ne ci yoon li mu def mooy aaya mbala kon boo seetloo li mu fa jàng ci aaya ci bu ci nekk mu doon ab équilibre day doon fukki aaya kon soxna Halima nga gis ne kon ndekete julli ci boppam ak dige la sallallahu alayhi wa sallam mi ko xam dige googu muy dige jant bi nga gis place bi mu jox jant bi ci biir julli gi déet kay jaamu jant bi waaye junj joxoñ jant bi ni mu nekkee ci julli ba bu ñu julee tàkkusaan ba pare fi ñu julli faraay yi nga xamante ne jant bi dafay ne jóge na fi julli timis kese moo fi des te julli timis googu wax naa leen ne jant bi jóge na fi nekkatu fi su boobaa da nga yëkkatiwaat baat waaye julli yi ngay téye sa baat ci suuf yi doo ko feeñal yëpp joxañ jant bi nga gis ne sallallahu alayhi wa bi mu nekkee fële ca timis itam li mu fooy wax itam su fekkente ne mel nga ni makalu bon jàpp nga li makalu jàpp dafa mel ni am na lu muy yoxan ci moom sallallahu alayhi wa lan lay bëgg a wax wala lan lay joxeñ balaa gee di ñëw waaye kooku waxtaan bi di ñëw incha allah dañ ko waxtaanee soxna Alima والصلاة والسلام على أشرف المرسلين